waaye yéen lu bees tàkk ak 1xBet ak seen code promo VD 221 yokku leen seen wërsëgu nga ñaay ba noppi teg ci kaaraange gu mat sëkk ngir mën di def seen ay dépôt ak seen retrait saa yu leen neexee moo xam ak somme bi nu mu mën di toll rax ci dolli di ngeen mën di bànneexu ci bonus yi 1xBet di maye ci ñi am compte yu fiable lu si gën a neex mooy ak seen code promo VD 221 dina leen dimbale pour yéen ñi def ay coupon tàllal Et plus de 13 mars, vous douze diapés, jàppee dinañ vous ci code ci ben code bi nga ne ngir mën leen a rembourser seen ci code pour yéen ñi am compte 1 xpet mën ngeen batay inscrire wat code promo VD 221 si ça si nga am bonus bu tollu ci 156.000 francs ak bonus sous 200 tous les mercredis sur tous les recharges à partir de 1200 francs ak code promo VD 221 de ñëppay gañ yow mi bëgg am compte fiable ak ce code promo VD 221 topal tegtal yi ci vidéo bi ngir nga mën ko defal sa wambuge am gen gan yen am gen gan wow wow am gen gan am gen gan wow wow Gai TV mo fi jaran dil ñu mali kumba mok ni dayam kaw du ko may dara ma xassi galle bi jek bu ko neex mu faat iya karu kaw bés bu nekk mu das mali kumba ak tantam na mam kendu kala al yo mali kumba atanta na mam kendu kala al bigara dak lek sos argay tv mo ñu jox ñu nos ambiance kër di lolo dak ne argay tv mo jox ñu nos Sky TV Meram si koz music. thank you kaaw kaaw ay nelaw de waay soo ay seerlu waay waaye man tu fudd bu fudd bu metti bi fudd bu bari wóorul de boo yàggee ma nga fudd jàpp-jàpp ne tuut te doo ko yëg man fudd bu bari baaxul ma nga fudd jàkk-jàkk naa maali kumb maali kumb yow del xool say li ngay wax a wax rek maali kumb yow nit ñi duñu wax da ngaa dof mais man damaa wax yow defuloo jinne jàppul maaleykum nekkal ma nan la mag tëddee di sese may sese sama sese nga may wax li nga may waxal. baal kër kër Cheikh Diop Mbaye laa jugee Cheikh Diop Mbaye jànkat. waaw waaw xam naa ko waaw. dama faa demoon pour ko mu wax kay mu wax Lamine Mbaye doom ji. mu jël mu di ko ci xasaay suñ tuubaay. ah. waaw. yow mi. waaw nee na sax kay man mu ne ma bàyyi ci xel dina ma woo. Cheikh Diop mu woo jombaay mooy dootul jaral kaset ah moom mi jugul de day way ay xasaay suñ day way la woowee laa wax ah kasetam dootul jar laa wax léegi maaleykum dama bëgg ñu waxtaan tuuti man ak yow waxtaan bi nag waxtaan ay siyaas la science science da ngay nekk nit nga déglu lu mu la. lan la la ma science. science mooy xalaat. mooy xalaat waaw. Hmm? waaw Malicoum euh, Malicoum. baay maale kura maale kumba waaw benn la rek moo ah, tey waxal nanka benn la yoro mu loo ma si kër bi hmm? tuuti rek tuuti rek hmm. tuuti lu mooy daw si boo ngoon jot sa tante Hadi Baba dama dawal rek di daw di la jox di la jox ngay lekk di jox a jàpp paas lu nekk ma jox doo jàppal yàlla si yàlla rek ngir yàlla te yàlla tax nga xëy nga dem liggéey ah nga ñëw nga defal sax bu dul man sax waxuma man de sa say sa yaay bu ndaw bii sa tante bi nga am fii la la fii nga nga sagal ko rek benn jour sax nga xëy nga am trois cent wala cinq cent nga ne ko am maa la ko may. Eh, yow ne ko amoo xel de <laughs> amoo boo demee ba am cinq cent ñoo may ko lan laay dese yow de doo xalaat yow ndaxte maayen jaro kullan Thế sao mà mày có có nhà có ma là có mày Mà dè hả Mày nó cái nó cái treo đọc ngà đê Đọc là cái Bà kẻ đọc ngà Yo yo yo yo mai là cùng mày Hả Yo est cái sao bobby mày hả lại Đó là à? Ê, ê, ê, lùa khéo Lên lên lùa khéo sa Sao sao sao đang ngà đê père waaw da nga fay courant déedéet faye gu mu courant de lan la lu xew rek mu si koñ bi di coupé courant rek moo tax ma damaa doowee bëgg a dee assassin rek bi mooy coupé courant mooy coupé courant yi <coughs> ma jox naa sama xaalis courant waaw jox nga ma xaalis te néeg bi da dafa tàng mënu maa tëdd sans sans ventilo fay courant feesal biir boo pare eh sama xaalis courant jël mu lekk naa ko def naa ko dépasse ah loolu moo tax ngay daw sa daw yi di ñëw fi ana booy Senelec bi ana Senelec ah, bi mu ngi coupé mu ngi ko ñu di coupé xaaral ba mu ñëw boo fii boo fekk ñu fi eh pere eh, eh, eh, eh voilà muy ma pour mu wax la wax bu jeex lekk nañu xaalis bi fii jëf naa ko ceeb ak diwli la may loolu ah woo naa la sax si añ bi nga ah. ñëw añ si eh añu ma sa añ musuma añ sa añ sama xaalis ko na yoruma ko fii wala do doo fay kii ah leer leer leer léegi xaaral ba mu ñëw ñu xool lan lay koy. dama ñëw su ñëwee da ngay coupé su ñëw da nga coupé. du ko coupé eh waaye moom mu coupé gàll yëpp naa du ko coupé. sama mbaar mi ah. day leer nañu pour. te yow laa waxale leer ah? leer leer. waa léegi xaaral léegi ñu xool xaaral ñu négocier ko booy xoolal nag xam nga lan la nag bul doxalee noonu nag yow nag ah yow da ngay yow may wax fii ngay woon xam nga yow da ngay nekk di indi ay problème. non ñooñu duñu baale te duñu waxtaan day ñëw la coupé. déedéet te yow bon bi mën mënoo kaa fay bon coupé mënoo kaa fay. <coughs> yàlla yàlla mun na ko yàlla mun na ko tefal na nga rek ñun yow itam joxe sa xaalis courant rek daa jar ngay kii man li a la jox moo ëpp valeur néeg laa la jox. man néeg néeg waaye néeg laa la jox. ah waaw. waaw jox dinaa ko fay. eh booy Sénélec pardon Sénélec yow laay agent yi Sénélec ça va na nga def ça va bien lu bees na nga sant bu va bien alhamdulilah ça va na nga def ça va ñabeeg nambe waay baaxul ça va na nga def courant bi laa coupé c'est fii ah ñëw pour couper courant hé waaw boy, boy, doomu dimbali rek man maay nekk borom. non non non man aw ma lu may dimbali de. soo amee looy ñaan da ngay dem Sénélec nga ñaan. waaw d' accord waaw Sénélec yow yaay Sénélec. fi mu toll nii déedéet déedéet ah. père man agence la dama ñëw pour couper courant bi jeex na. waaw boo amee looy ñaan demal nga ñaan waa Sénélec. waaw waaw d' accord nag xaaral te bon nag nag dinañ koy waxtaane nag loo gis dafay am dialogue loo gis dafay am dialogue ah réew mi sax dialogue moo ko cakawal. waaw nañu nañu ko dialogué man ak yow ah mënuloo ko couper nii rek nga dem nañ bàyyi boo fii ak deux danga ame ay arrière facture yu bari yoo xam ne fayoo ko ñi jot a amee fii arrière ñëpp coupé naa leen waaw donc du ma ñëw ba ci yow nga may sonal ak wax ji bari waaw waaw waaw déglu wax ji dama ñëw pour couper courant bi point barre soo amee looy wax ah. sa arrière facture yi nga yor fayoo nga dem Senelec nga lijjanti ko nga fay leen waaw léegi boo jodi léegi bàyyil xam nga tey la kañ ci mois bi xam nga tey la kañ xam nga sa délai facture kañ la jeex waaw jeexoon na kon wax ji bari ji jaru ko damay couper courant bi soo demee booy fi sabil li laay booy fi eh, sabil waaw wuy sama Faham apa lah? Wow. Không là khăm mà sao mà là mà còn vá. Ừ. Yêu duyên. Phá vào. Hả vào mà cái à, cái trang này. Không phá vào gọi là phá vào đa trệt. Phá vào nhất tuyệt là mình mai đâu depass mai đâu kì. Và lý nó budde mẹ nó câu hả qua sen lệ. Ai ai sen lệ cái sao vậy? Đấy, ừ. mà đúng mà sen lệ. Sao chấp chi? Mà sao chấp chi đó? Sao chấp chi? Sao vậy? Ê, ê. Chấp chi. Sao chấp chi? Chấp chi. Chấp chi. loolu yow kii de la Sénélec lay jotee. ku Sénélec may. Malick Mbala la. Oh, waay daa dem. waaja. dem na. ah dem na waaw. Malick Mbala wóor na yàlla. Ah, ah, ah, sa yuuxu yi nga yuuxu lan la. technique la technique technique moom doo ko moom doo ko dóor moom tey moom doo ko dóor. ki coquette la ma dóor. <laughs> daa la coquette. <laughs> yow léegi kaay ma la ko mu nan nga def booy ko. wala ko nekk am nga njëriñ tey de. am nga njëriñ tey de. seere nga ko kay. waa mooy raw lappe. kii du ñëwati xam naa ko taw ren jar ni o yeehi laawol makko de dawle daw kontaan naa tay moom genna makko so wadama sama ne han genna makko so wadama sama ne mo genna ko ah yo amago tena taw mota ah sarala eh eh eh mo ko sarala ko ha mo dan ko genna kan makas ma genna makas wa wa har mo fo mo genna makas taw jow taw jow har har ket bi na de Babu dia mandra dai ham go. Ah ko kadu. Dada. Dada. Ah ko kadu. Ude oh, ngome ngome ko safla de. Kayak mati lah. Ah, kasar tak susah. Tilim Jika nama mungkin TV lolo Argaye TV moo ñu jox ñu lool bi kër a dàkk kaa ñu lekk soos Argaye TV moo ñu jox ñu noos ambiance su kër gi looloo dàkk ne